ci ay élection lañ génne defaguñu bilan bu bu egg ba xam bilan bu gestu ñu jublu ci ay élection maanaam entre bi six mois lay doon wala du ko mat yaakaar naa ni xam fi ku wóor ku leer ba mën a ànd ak moom ci politique day jafe ndax nit ñi dañoo mën a soppeeku koy kàkkatar lañ yore te man ci lu ma xam rek laay dugg te itam tudd nga léegi coalition gëm sa bopp ma bokk ci ñu njëkk alerte ni su may dem élection képp ku nuróole ak man couleuru Ablaye Wade bëggoo ma gañe danga maa xeex ça nag c'est mon opinion personnelle mm-hmm. c'est l'opinion de Mame Diarra Fam ça n'engage pas le Ablaye Wade euh, Macky Sall en 2017 bi may nekk député avait son son son son. Euh, son gëm sa bopp son Bougane defal ndànk l'autre euh, Ousmane, mhm. mu jël les mêmes couleurs du PDS boobu sax nekku ci woon fu nekku fanaan la bleu marine 345 moom zone bleue la rek mu def mbaxanam Ablaye Wade dama teg ko ca finalité tey mën naa ni. mooy ki gën a jege daaw de Diallo ci législature bi ma toog di treizième chaque jour ma gis ko moom moom donc récépissé bi nga xamante ne moom la utiliser woon pour def nuróoleeg man coalition nuróoleeg ba tax Italie ñun presque perte nañ plus de mille et quelques voix yoo xam ne ci kaasam lañ ko bind. ok loola c'était pour fragiliser le PDS. bi lii amee bërki démb maa njëkk a tiit alerté ni leen les couleurs de Bougane man si dem naa sax ci émission wax dëgg yàlla ci teleem wax ko ni ko nañu bàyyi suñu couleur jaune bleu c'est les couleur de Wade loolu itam maa ko wax te man ça n'engage que moi ba tey ba ñu demee ba ci biir ñun dañu am ay électeurs yoo xam ne électeurs yu mag lañ jaune bleu rek lañuy ñuy xàmmee Ablaye Wade ça nous a préjudice bien vrai que def nañ un résultat résultat bu baax lañ def euh, ndax résultat bu baax weesuwul nga perte pouvoir mille 2017 nga def mille voix presque 2000 bii xëy na peut-être am na ñu ko mën a jàppee rétrogradé mais aussi devant nous dafa am lu ñu manqué muy taxawaayu leader bu taxaw muy le président Abdoulaye Wade muy le président Ablaye Wade. dafa amatul sax leader bu bu tax ñuy wax leader. da ma cee xeet. Ah. déedéet. Barthélémy. Ah, charisme leader bu am. charisme dama bu bu too bu am dayoo bu mel ni Ablaye Wade un gars boo xam ne. waaw fa laa jëm xam nga yaa ngi koy wax xam nga yaa ngi koy wax da nga ñëw ci sama argumentaire teg ci sa argumentaire. waaw waaye man mi nga koy waxal maa ko commencé di ko wax bàyyi ba ma yeggale ko rek. Ah, ca demal. dama ne. Mhm. dañoo wéet ci leader. ni la Ablaye Wade moo ñu manqué ci élection yi paas ni la Karim Wade mi nga xamante ne mooy su mooy sunu leader incontestable et incontesté au niveau du Parti démocratique sénégalais candidat à vie jusqu'à devenir président en 2024 manqué ñu dem ak sunu bopp am job kenn taxawul ci suñuy meeting yéeg ci naan maay leader bi ku ci nekk meeting ba nga def yaa ko présider yaa ko meeting la nga am yaa ko may sa bopp donc moi je pense que loolu manqué nañu terewul on a fait un résultat de quatre cent et quelques mille voix kenn rawuñu ci élection yi dama bëgg ngeen def benn analyse scientifique su fekkente ne dañuy jël coalition yi fi nekk beaucoup de leaders se se rassemblent dans une coalition euh, Benno Bokk Yaakaar moo jiitu kan moo fa nekk le parti socialiste l'APR. E euh, AFP. AFP. et PIT. PIT limal. LD ces anciens partis LD. LD de ñëpp a ngi ci biir. c'est une très grande coalition. kan moo ci topp yeewi askan bi ñan ñoo fa nekk mon fils Ousmane Sonko ah ma ma Khalifa Sall Malick Gakou c'est des c'est des c'est kenn dootu leen naatable. am na lu ñu prouvé ci opposition bi ñun bi ñu ñëwee ñun ñu ngi dem man ñun ñu ngi dem PDS ak Mamadou Lamine Diallo tekki la ñu àndal au mm-hmm. finish pratiquement sauf a ak Abdoul mbay ñëpp dañoo génn mu des ñun donc on est arrivé avec quatre cent mille voix sunu quatre cent mille voix yooyu nag bul ko xeet parce que ñu bari lañ ñoo xam ne dañoo àndandoo am benn résultat ay parti yu bari ay parti yu mun tuddee ay parti yu mag ñun ñu dem ak peut suñuy moyen de bord am 400000 voix on a fait un bon résultat san lider tey du ma nangu man li ma liggéeyoon ba yegg si ba fi parce que man dama am habitude di wax tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi man munuma d'accord tey préjudice yi nga xamante ne yenn yi porte nañ ñu ko ci problème couleur problème leneen tey ñu wëlbati ko encore di waxaat parce que man affaire yi sax dafa ma bett man je me suis réveillé tey ci suba rek dégg ñu wax lu mel noonu. kon gëmoo ko parti gëmoo ko. non dans gëmuma ko te yëguma ko nag yëguma ko. Euh, est-ce que ci élection yi ñu jëm da ngay envisager euh, rester au PDS bu fekkee ne.